Donc, euh, de ce pas. Donc, avec, euh, euh on me signale que Mamoudou Ibrekan est en ligne. Mamoudou, nous sommes nous. maa ngi lay fay waaw xibaar bi moom tey moom mooy tey mbiru amnistie ba ñu tudd ca conseil des ministres ministre fu ñu ko war a mën a tubee ba nit am ci yaakaar ci yenn ci ay woy politique jàngat bu njëkk bi nga ci def euh, ca bi nga déggee xibaar bi. waaw jàngat bi ñu. mën a def yaan mooy que euh, bu fekkente ni Karim wàdd ak xalifa sal la yéene njiitu réew mi ci euh, na ko jëm la ko jëmale mën nañu wax ne euh, jotoon na bu yàgg loolu mën a am ndaxte bu ñu nekkee ci ci démocratie euh, démocratie dafa am ay règle règle bi mooy d'abord euh, liberté de participation à la compétition électorale euh, ci ay waxtaan yu yi nga xamante ni jotoon nañ ko am bala tey gi yàgg nañu di wax ne inéligibilité mënuñ ko teg ci ndodd nit ki pratiquement ba abadan hmm. inéligibilité dañ ko encadré euh, ci ay ci ay ay règle te loolu aussi dafa mësoon sax nekk débat entre juristes yi am na ñoo xamante ni dañu ne inéligibilité bi nga xamante ni dañ ko teg ci Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade loo xamante dafa ça ne se présume pas dafa war a doon benn condamnation complémentaire bi ñu jël pour ne kii nii li mu def ak gannaaw buñ ko condamné moom moo ko def waratul an am sañ-sañ bokk ci élection nekk électeur walla nekk éligible donc tey jii bu njiitu réew mi waxee ministre de la justice am Ismaïla Madior Fall nga xamante ni xelam dafa màcc ci mbiru droit euh, mën nañu jàpp ne entre autres raisons xëy na dellusi si Ismaïla Madior Fall ci gouvernement bi. Hmm. surtout ci ministère de la justice. Hmm. Euh, mission bi bokk na ci mission yi nga xamante ni moom la ko njiitu réew mi jox. Hmm. Euh, donc tey gii que président de la république wax ne Euh, te loolu jotoon na ko wax mois de décembre la woon que moom pare na pour ñu ut benn formule moo xam amnistie la wala beneen formule bi nga xamante ni hmm. dina permettre Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade maanaam mën a recouvrer euh, seen seen droit euh, civil et et politique hmm. donc loolu mën nañuy jàpp ne peut-être fii ak i fan Euh, dina am loi parce que bu dee amnistie la loi la assemblée nationale moo koy voté euh, du ñàkk xëy na assemblée nationale ñu saisir ko pour xëy na député yi mën a mën a voté loi boobu loolu premier niveau bi la deuxième niveau bi mooy que ni euh, dafa am contexte aussi parce que bu ñu fàtte ni que tey gi Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni Euh, coalition bu nekk ci nguur gi te président de la république nekk seen njiit amatuñu une majorité écrasante disons sax majorité absolue parce que même cette majorité absolue fu mu nekk ni ñu ngi wax ne ak euh, Aminata mhm. toure bi nga xamante ni dafay euh, nekk maintenant non inscrite quatre-vingt-trois la ñu woon gannaaw bi Pape Diop ñëwee ñu nar a nekkaat quatre-vingt-deux donc day nekk majorité relative donc loolu yëpp defe naa euh, marge de manœuvre bi njiitu réew mi amoon au plan politique vis-à-vis de l'opposition mais aussi surtout par rapport ak yenn dogal yi parce que bu fekkente ni dafa bëgg a euh, def ay réformes euh, léeg-léeg réforme yi laaj nga xam ne au niveau de l'Assemblée nationale que mu am une majorité absolue léeg-léeg sax une majorité qualifiée bu fekkente ni ubbiwul jeu bi jiital diisoo dina am ay ay jafe-jafe hmm. certes am na ay ay pouvoir yoo nga xamante ni constitution may na ko ko euh, comme gouverner par ordonnance euh, même loolu itam c'est c'est c'est encadré ah loolu loolu itam c'est encadré c'est pas que da ngay xëy rek nga décider de gouverner par par ordonnance dañ ko encadrer euh, loolu boo ko xoolee amoon na bi mbas mi ñëwee. dafa saisir assemblée nationale pour benn vote loi d'habilitation comme ni ñu koy waxee. Euh, wala léeg-léeg bu fekkente ni le fonctionnement des institutions est est bloqué de manière à euh, maanaam indi ay. ay situation boo xamante ni bu doy waar de blocage des institutions njiitu réew mi am na lu ko constitution bi may ci ay dogal mais loolu yëpp euh, ay éléments la yoo xamante ni yi ñu war a considérer le contexte politique n'est pas trop favorable au président de la République du fait de la majorité relative bi nga xamante ni ou Euh, absolue mais très étriqué bi mu am ci assemblée nationale. Mhm. Euh, ñetteel bi dégg naa Assane gi di ko wax. Euh, je crois que te loolu aussi jot nañ ko wax. président xëy mu def ko de manière volontaire wala de manière involontaire. Mhm. ni mu doon doxalee jusqu'ici ni muy doxalee vis-à-vis de l'opposition même au niveau au au au sein du pouvoir dafay mel ni dafay écarter ay profil yoo nga yi nga xamante ni profil euh, euh, yoo xamante ni am na solo ci euh, pour démocratie mën a dox. Mhm. ci tolluwaay réew mi maanaam ci valeur yi nga xamante ni ñuy wax valeur républicaine ak yu mel noonu. Mhm. pour loolu mën a sax. Mhm. dafa laaj aussi géopolitique bi ubbeeku. parce que bu ubbeekuwul. dafay créer benn vide te ni ni ñu koy waxee ci tubaab la nature à horreur du vide hmm. loolu tax na ça il faut le reconnaître que tey jii ñu am un certain nombre de profils yoo xamante ni forcément c'est pas des profils yoo xamante ni ñu ngi ko doon xaar parce que à force de de de de de mettre en difficulté ou d'écarter des, des profils prévisibles parce que mhm. républicains qui ont une, une certaine histoire, un certain parcours, mm fini par fair la promotion de, de profils imprévisibles mm -hmm. et donc peut-être le, le, caractère républicain est, est, sujet à caution. Voilà, lolo lolo yep defena euh, ci ay mën nañ ko tek ci table bi ci ci niñ ko mëna jàngatee tey gi nga xamante ni dogal bi nga xamante ni président de la république jël na ko jëmal ko euh, voilà naturellement. Mhm. Euh, Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade maintenant mhm. ma jeexale foofu Karim Wade dafa mës a wax ni moom euh, dafa bëgg que ñu xoolaat procès maanaam mhm. la révision de son procès. ba sax teg teg ci ne dafa bëgg sax ñu indemniser ko. loolu daf ko mës a wax mais may laaj beneen laaj. bu ñu fàtte ni bi ñu condamné Karim wadd c'est pas seulement pour mu tëdd kaso tëdd na ba ñu jox ko grâce waaye dañu teg ci ndordam benn amende boo xamante ni bu am bu am solo. cent trente huit milliards de francs CFA uh-huh. eh, te kooku même njiitu réew mi moment ci benn entretien mës na ko fàttali ne bon voilà bu Karim wadd euh, mën na ñibbisi mais bu ñibbi